jamono ji yëpp taskatu xibaar yi ak mboolem kaay yi di fësal dellu si nga xam ne ni Abdoulaye Wade dafa seen na koo dellu si ci réew bu Sénégal ñu jàpp ne lool lee war a nekk bisub àjjuma ji ñu leen dëgmal jamono ji nag mbëggeel gi nga xam ne moom moo dox diggante Touba ak Abdoulaye Wade sépp di ko seere mel na ni ba ni mbëggeel googu lee mi ngi dox ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñi ngi fësal ne jamono ji ñu ngi xaar Abdoulaye waat ak yàkkamti ko séntu rek fas yéene eh, dem teertu ko dalal ko ndax wax dëgg yàlla Abdoulaye yor na fi réew mi yor ko rafet mooy Abdoulaye Wade dafa war a ñëwaat waaw parce que Abdoulaye Wade li mu fi defoon ñëpp gis nañ ko yaa ngi dégg waaw yoon la mu ñëwaat Sénégal parce que fii mooy réewam. ñun moom ay taalibe lañ ndigal rek la ñuy déglu ci loolu ndax fii dañoo am lu ñu baaxoo tey bu sëñ bi bu bu sëñ bi amee gan day wax ne gan sàngam mi ngi ñëw su ñëwee ak naka lañ koy teeroo loolu moo ñuy jox ndigal waaw. ñu bari ci ñoom jàpp ne bu Abdoulaye Wade ñëwee ci réew bu Sénégal nam ko daan defee rek la koy daal di defe day jawal si fi nga xam ne moom moo dëkk bu sell bi di Touba askan itam jàpp ne fas yéene nañu koo teertu bu mag a mag a mag li nga xamante ni moom moo jëm te fam leen joxañ foofa la ñu fas yéene xool bu ñëw dañ koy ko ci jàmm Abdoulaye Wade bu ñëw moom bu dee Sénégal day si baax day wax Sénégal rek ak ñëw moom day nax ci Sénégal rek fii rawat na fii xam ne moo di Touba waa dëkkam sell bi Touba dëkkam la ñun daal ñun ñëpp ñu ngi takku nekk benn àndoro nekk ci ginnaaw Abdoulaye Wade ba képp koo ne jàppale ci kan juróomi kandaay rek ñun ñu jàppale ko fii la dëkk yaa ngi dégg li nga xam ne maanaam moom def na ko ñëpp gis na ko donte ñoom sax gisuñ ko man moom man li ma nekk ndaw ndaw gis naa Abdoulaye Wade li mu fi def yaa dégg Abdoulaye Wade li mu fi def ñëpp keneen koo xam ne maanaam da fi def Abdoulaye Wade gëj lool ci réew bu Sénégal ay xew-xew yu bëri am ci ginnaaw moom fi gëjee ba nëga ni nag àll ngi ne seen ndaw suñu diggante ak li nga xam moo jëm ci élection présidentielle yi ay fan yu des Sénégalais la sañ naa ñëw Sénégal sañ naa ñëw Sénégal ndax Sénégalais la ca am parti kon nag bu élection yi jub nii war naa mën a ñëw def ay campagne doomam ji xam ne moo di Karim Wade nii li mën na ko ci ci lii 2019 yi waruñ ko waroon bàyyi mu bokk parce que xam nañu Karim bu bokkoon day gagné ndax baayam li mu bu ko nit ñi ko nit ñi comme ni bàyyam bu ko nit ñi jàppee comme ni bàyyam kon Karim dafiy def comme ni bàyyam defoon war ko woon a bloqué da ko war na bàyyi mu ñëw rek xanaa daal ñeme wu a ci yenn ci ay xibaar jàpp ne moom góor gi war naa dikk ci réew bu Sénégal bisub àjjuma bi ñu a jamono ji nag mel na ni réew maa ngi ne tekk waaye itam Touba mi ngi xaar ñibbisi ki nga xam ne ni jàpp nañu ne mbëggeel gu du dakk dox na seen diggante ak population bi